salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi ni siyaar ka si nekk ma ngi la jox sa wàccuwaay séquestration bi nga xamante ne def nañ ko Ousmane Sonko mooy barricade bi ñu ko bari barricade fële si cité kër góor gi mat na 40 jour mat na 40 jour te dañ ko tooñ teguñu ko si yoon amul benn këyit benn bind ne. wala boog benn juge ba wax ne ne nen ka nangam nen ka résidence surveillée ou ou ou d' autres choses là te kenn te kenn te benn kilifa sañu kaa wax te benn kilifa sañu kaa wax am na na quarante jours ab cax nag la ma leen a def nii ab cax am na quarante jours ba tey maa ngi ci cax bi. ab signal la bokk wala je veux dire ab signal am na 40 jours wax ja yegg ne dafa ko moom te yàlla buy ñëw moom du tàggoo pirip rek mu ñëw wax ja yegg dafa ko moom yal na ñu yàlla defal sutura Ousmane Sonko yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla samma yal na ko yàlla samma